salaamaaleykum mbokk internet yi mbokk gis ngeen li ñu leen doon wax ci première partie vidéo bi actuellement gis ngeen fii nii lii yëpp ndox la te lara warul ko lu dul yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii nii muy waa terre bi nar a indil jafe-jafe boo xamante ne kenn mënu ko xam nan lay toll yoon bi ngeen gis nag ndox mi fa la daan jóge jaar fii nii jaar ci biir fu def pont bi pour mën a dem yoonam actuellement ñoom commencé nañ seen travaux ñoo ngi commencé di baare yoon bi gis ngeen seen miir yi nga xam te moom lañ fi def pour nit ñi bañ a jaar ci kaw teer bi kon di nit ñi benn yoon lañ mën a jaar mooy yoon bii nii ci pont bi te tey jii nii seen liggéey ndox maa ngi nii yàq na li nga xam ne moo di yoon bi nit mënu fee jaar li leen di wax mooy ñoom ñu fexe gën a baral seen liggéey ñëw indi solution ci lii ndax heure bu ñu ko indiwul nag mun na indi yeneen jafe-jafe parce que ñoo ngi ragal ni ñi jaar ci kaw seen travaux yi mooy si terre beeg loolu nag solution bi mooy ñoom ñu fexe gaawal seen liggéey indi solution ci lii nii en tout cas li fi mun a liñ leen mun a tënkal ci li fi am doy na waar tey jii nii première taw rek nit munu fee jaar am na ay moto yoo xam ne dañ fee jaar giro ak oto gis ngeen situation bi doy na waar trop li ñu di wax mooy ñoom ñu fexe indi solution ci lii